cheikh sidil muntaha dina ko wax ni ko pour mu wax mag buñ demone bamay japp jàpp itam nañu ma def résidence surveillée proxa ndax buñ mo yobbo ci kaso yi mom dëkk bi day yëngu ndax ma nek fep ci kaso yi fa dem la ilaha illallah jang buñ demé ba jàpp ma munta ñak nañ ma def résidence surveillée jàmm ni ñooy lu ko mooy rek baj baj day bari non non dinaa ko wax sëñ bi nee naa ko nel Macky bu fekkee dara desu ci lu dul jàpp nañu yóbbu poroxaan def na <laughs> résidence surveillée <laughs> Macky sax ma digg kii day farcé rek mais farcé wu ma de <laughs> waxoon naa fi Ablaye Wade fexe leen ba ma jàpp ma fexe leen nu ñu ma jàppee te du ma rey nit du ma agressé kenn du ma kii mhm. fexe leen nu ngeen ma jàppee vraiment tey de état sax moom dañoo bu leen neexee sax ñu jàpp lu ma bitim réew. bu leen neexee waaye na jàpp gi am rek. mais bu koy nen bu kenn dama rey nit mbaa dama wut drogue. bu kenn wax loolu. <laughs> nee na nañ ne rek daa bëgg ku ko jàpp. ku fi jàppoon ni doo ma yóbbu 100 parce que boo ma fa yóbboo coow li day bari. foofa ay Modou Kara ka fa nekk. kaso ba yóbbu waaye bu mu doon kaso yi waaw xanaa ñëw def ma résidence surveillée fële Porokhane. waaw kon jamm ni ñoy mom ndax suñu munta xadana bu ko kenn fekk fi nan dara waye bu dul loolu daal ndax ah te buma tepp di wax di sanni de amna ño xamne di ñam yu ñi jëm makki di leen calmer yoy yep yëg ko man maa ngi fépp am na yoo ñoo xam am yu ñi jëm makki di leen calmer jorul sama leen di calmer man ne leena bayyi rek fi bo ñewé yaa fi fekk birazu man بارزني برزم يبارز المنتقم